Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan di leen baal wax ci wéru koor di ñaan yalla yalla nu boole jéggal di yëkëti nuyo bi di ko teg si loxo sang ñu fekk ci fi mu jotal ka gënte gëp ñëw fi tay ci turu xalif général de Layène Seydina elhadji Hadji Baye Abdoulaye Thiaw di ka ñaanal yalla yalla bàyyi ko sunu kanam mu yagg fi lool ak mbolim khalifa yi yëpp mu ñëwoon tay nemmeeku si waa gent indil leen njàppaleem ci lii nga xam ne dal na si réew mi muy mbas mi nga xam ne lëmbe na àdduna wépp muy yóbbante ñu woon xalifa bi li lii xéewal yi nga xam ne jàppale la jëme ko si Abdoulaye Diouf saar jëme ko si njaboot gi nga xam ne mooy yoof gépp ndax ku ne xam nga ne Abdoulaye Diouf saar non seulement njaboot dafa bokk si njabootam waaye nag lii ci kawam la daal ndax mooy ministre de la santé ba pare di maire commune yoof kon lépp lu waay di def rek moom ngay jàppale si njaboot gi moo tax Serigne Ablaye yëkkati teraanga bi teg ka ci loxo am pour mu jàppale ko Yoff gëpp looloo waral tey suñu tànk fii ñu ngi boobu ba léegi ñu ngi dem ci quartier tey ñu ngi gent buñ fi jógee ñu ngi jëm Danaat suñ fa jógee ñu ngi jëm Tóngoor di ñaan nag ngeen ñaanal xalifa bi mu yàgg fi lool ngeen ñaanal Ablaye Diouf Sarr tam mi nga xam ne mooy doomi yoof yàlla may ka ndam ci lii mu li mu song nii muy mbas mi yàlla may ko si ndam ba balaa yàgg feebar bi jóge fi génn adduna gi yëpp yàlla jële ko fi yëpp mu bañ yem Sénégal mais adduna bi yëpp yàlla na ko fi yàlla jëlee ndax fu addu euh, fu mu mën a ne rek julli julli ñëpp la dal kon nañ ñaan yàlla mu laaw yàlla laaw mu laaw fépp yàlla jële ko fi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaamaaleykum barke bay la yor may Seydina Issa Rohou la ñu ngi ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal Baye Abdoulaye yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg lool te wér ah li ñu defal teraanga ji teraanga ji ñu defal waa Gént nag man dama ciy sawar trop waaw loolu dëgg la man la jaraaf Dudu Mbengue <laughs> wax nga dëgg de man la jaraaf Dudu Mbengue waaw doomu jaraaf Issa Mbengue di xaritab Baye Abdoulaye Thiaw Baye Ablaye sama papa euh, Seydina Issa Ro la dafa mës a jël loxoom teg ci suuf jël loxo Baye Ablaye teg ci kawam nekk ni laa bëgg ngeen fekke ma yom a am kon nag tey teraanga ji bu ñëwee ci gent ñu teg ko sama loxo euh, dañu toppaat yoon yi ba mu dal sama kaw rek kon maa ngi ciy sant yàlla bu baax. di ñaanal sëriñ bi bu baax yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg lool te wér suñu ji di laayeen yàlla na ko yàlla gën a couleur ñun xamuñu puukare xamuñu dara lu dul tegu ci yoon rek kon bokk maa ngi ñaan suñu borom yàlla na ko gën a couleur euh, di ñaanal suñu ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr lii dal ci kawam mitti na waaye méttiwul ndaxte xam nga ak ñaan moom ak ñaan la rek man ngaa ñaan waaye bul xam lu ko yàlla di nangoo fii ma taxaw di gent mas fi ñaanal ne ko ginnaaw Macky sàll yàlla na soo tur gën a siiw ci Sénégal waxuma Sénégal waaye àdduna waaye defe naa fi ñu toll nii xëy na fi mu dale moo métti waaye fi mu toll ni def naa ne ku dul Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr la gën a siiw kon nag loolu ñaan gu ñaan gu ay mbokkam ñaanal mu nangu ñuy ñaan tamit lii nga xamante daf ko song yàlla na ko daan daan bu rafet jël bu amul benn werante ci barken salaal sam te am nañ ci yaakaar bu baax ndaxte ku yeewoo ci ëttub Seydina Allah sallallahu alayhi wa sallam am nañ yaakaar ci yow bu baax a baax a baax am naa yaakaar ne lépp lu mu song ci kaw suuf dina ko daan ñuy ñaan suñu borom yàlla na ko gën boroom réew mi nga xamante ne moom la yàlla dénk réew mi yàlla na gën jël loxoom teg ko ci Abdoulaye Diouf Sarr yàlla na koy déglu yàlla na koy xelal yàlla na ko jël dugal ko ci biir xolam ci barkeen sallallahu alayhi wasallam kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci barkeente bi. kontaan na nañu tey sëriñ bi du c'est la première fois mu def lii loo leen fàtte def na lii defaat ka defate ka mbas mi nag day ñëwaat mu génne laa mu daan def defate ka sëñ bi àll nu maam ba defalee li Abdoulaye Diouf Sarr doomam la ko defal ba ka defalee ab sidam la ko defal sëriñ bi def na li ko war parce que moo war a njëkk def gannaaw monsieur le ministre si atam laa yeewu sëñ bi moo war a njëkk a def bon wane na boppam képp ku ñëw dollaxu si sëñ bi yàlla na gudd fan. nee sëñ bi woon ñaa nga ne kontaan na si aw trop yàlla bàyyi la sunu kanam ak sëriñam lébu moo tax nu bëgg ko noonu noonu la nu mel Abdoulaye Diouf Sarr nu kontan si mom di kan damoo di ko safoo mu la wax français garaaw mu France français maa rey bu mu ne vous voulez dire quelque chose absolument am lay Diouf kon alaykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak ci wi di ñaan yalla nuyu nu bo li jéggal di yëkëti suñu nuyu ak suñu ziar di ko tek ci loxop imam suñu oustaz suñu imam Lamine Mbengue mu boole ko ak délégué de quartier bi ak comité bi yëpp ak waa Ndenaat gëpp di leen jotal nuyoo xalifa général El Hadji Baye Abdoulaye Thiaw di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool yàgg gu ànd ak wér ak wér la ak mboolem xalifay lislaam yëpp sunu tànki tey nag mooy tànki nemmeeku ak ziyaara ci li nga xam ne ñoo ko yéen ñoo ko bokk yàlla nattoonu ko mu dal àdduna bi yëpp muy mbas mi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi yëpp lëmbe àdduna bi yëpp ñu ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla teggil ci barke bi weer wi Sëriñ Ablaay yëkkati woon ay teraanga jàppalee ko doomam goraam léppam di Abdoulaye Diouf Sarr en ministre de la santé ak en tant que maire mu jàppalee ko lii si njaboot gi ndax ku ne xam na ne lii si kaw Abdoulaye Diouf Sarr la dal ndax moy ministre de la santé yalla dogal mbas mi mu dal ci kawam ñu ñaanal ka yalla yalla na ci yalla may ndam balaa yag yalla na fi yalla jël fièvre bi ci aduna bi yépp ñaanal tam khalifa bi yalla bayyi ko fi mu yag fi lool ñaanal ñi ñu fekk ci tay di ndenaat kilifa yi ndenaat yalla bayyi leen fi bayyi fi njabot gi yépp lool mo doon suñu tank tay eh, teraanga yaa ni lele sëñ Ablaye tek ci loxop ñi nga xam ne ñoo mag si dëkk bi ndax ku ne xam na ne dëkk boo dem rek am na ay mag te mag ñi nag jar nañoo bàyyi xel loolu moo waral ñu génneel leen loolu la ñu bernele muy juróomi mag ñi juróom ñi nga xam ne ñoo mag ci dëkk bi yooyu di ñaan yàlla ñoom tamit yàlla dolli leen wër te bàyyi leen sunu kanam ndax mag baax na si dëkk kon maa ngi gàttal wax ji foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di wu ñëpp ci mbir mi nga xamante ne moom ngeen indi nii mu nekk mbir moo xamante ne mais mbir mu rafet la ndax lislaam dafa am loo euh, dafa am loo xam ne noonu rek la tëddee mais ñun bi ñuy jël rek mooy al iman te iman rek boo waxee iman war nga wax ihsan al ihsan mooy rafetal mais lu mais nii sa mbokk di sa xalif général des Layènes def ko ah mbégte moo xam ne mbégte mu réel nag yàlla na yàlla defal jàmm Cheikh Abdoulaye yàlla na yàlla yokk ay fanam mag la moom macha allah bu demee tëkkëb lëm mais ñu naan amul cinq personnes yu fi mag wala yaa fi mag mag la nag macha allah li ñu koy ñaanal kay mooy yàlla na ko yàlla yokk wér yàlla na ko yàlla yokk wér. ba mu jiite ñu nag ba sa kanam ak anam mais si nag li mu def nii mu nekk al musaadatu li jamiul umma ban umma mu ne um yoof yoof la ko defal macha allah te am na fañen foo xam ne dana ko fa yónnee mais lii rek la mbokkam mënal mbokkam ko ne nañu si aw tiis jaxare mais ku nekk xam xamul looy def mu ñëw jàppale ay taalibeem ay doomam askanan mu jàppal leen lii ñaan yàlla donc bu ngeen demee daal wax leen ko ne waa Andinaat si kàddu imaam Momane Ndoye imaam Momane Ndoye moo fon taxaw mais nag xam ngeen ni mu demee ñu ñëw taxaw à la place de Momane Ndoye ñu ngi koy ñaanal wér ak njabootam gi yëpp. yéen ñi nga xam ne tam yéen a indi lii te kenn nekk ay xale yu ndaw ndaw waroon dem liggéeyi ngeen dagg soxla yëpp ah ñu ngi leen di ñaan yàlla. gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa li ngeen def nii bi ko yàlla yooyu bi ko yàlla yónnee si nit ñi benn addis bu gàtt la wax mooy lan innama bu istu li utamima ah innama bu istu li utamima yàlla ko yónni ngir mu mottali mais li ngeen def nii xalif général yónni leen ngeen ñëw mottali ko wër yoof gépp nag yàlla leen yàlla may kantan ngeen ko doxee may leen wér gën leen jubaale ndëg ak njaboot gi ki nga xam ne si loo loxoom la ko teg muy ministre maire waaye yof gépp dañ ko war a ñaanal dëkk ndax lan xubbul watan minal iman man laa yuhibbu watanahu laa yakunu sharifan mais waaye yoof bu ñu bëggul Diouf Sarr kan la ñuy bëgg il faut ñu am euh, mat gu tool di ko wa ndëkk ndax yonente moo ne bëgg sum réew bokk na si gëm yàlla kon dëgg bu ñu bëggee Diouf Sarr day yokk suñu jaamu yàlla mais du ko wàññi yàlla na ko yàlla gën a jàppale ñaan ñu koy ñaanal yàlla na dal ci kawam ba du ko reccu nag ba bu ko récculee mais ñun duñu ko réccu damay fa di wax ne boo bëggee séddu da ngay dem bokk si ñuy si séddaale mais bu ñu amul woon ak ministre maire fee nan waxante dëgg rek am na yu bare yu fi ñëw duñu ko am de maire bi kese kese antalu ko mais nag lu ñu am fi toog di séddale mu nekk fu ndëg di laaj paadam di andi loolu moo tax ñu am nii yàlla na ko yàlla may wér gan ko jappale ndëg mu gën a yilif njaboot gi njaboot gi aussi topp ko ndëg macha allah alaykum wa rahmatullah alaykum euh, mbokk yi yoof ñu ngi leen di nuyu bu baax vraiment di leen sant tey jii di rafetlu li nga xam ne tey jii moom ñu fi tax taxaw muy geste bu rafet boo xam ne bii tey dañ koy commencé ci xalifa bi mu def loo xam ne lu rafet la loo xam ne du tey la door waaw ku xam kuréel laayeen xam ko ci yoof xam ne yo loxoom yàgg na ci mbirum yoof ba tey ji lu ñuy féddale rek la waaye lu ñu xamoon bu yàgg la di leen ci sant bu baax parce que bu ñu ba tey ji gis mbas mi nga xam ne moo am ci àdduna bi ku ne xam ci sa waar la nga sa war a def ñoom aussi ñu def lu mel ni dimbalee ko monsieur le maire mi nga xam ne moom aussi vraiment sonn na ci trop ñëpp gis nañ ko mais dañuy rafetlu loolu dañuy rafetlu duñu si sori nag ndax imaam Lamine wax na ci la mu si war a wax la nga xam ne taxawaayu kuréelu laayeen la ci joof gi boobu ba léegi defe naa matale na la mu war a wax ak li nga xam ne aussi moom lay ñaanal ñiy taxawet mbir mi tey yii nii tey li si dolli rek mooy que ne vraiment dañuy rafetlu en tant que délégué de quartier ñu ngi fi nekk nii ak commission bi nga xam ne mooy commission ciblage li nga xam ne mooy denrée yi état di joxe ak ñi nga xam ne ñoo ko feelu maanaam ñi doon def euh, euh, téléthon bi ak yëpp tey ñun ñoo fi toogal ñooñu man maay délégué de quartier bi président de commission bi Youssou Ndiaye ngi nii président euh, comité de gestion Imam Lamine Dour Badiane commission santé bi ñoom Faye Seck les jeunes Alsane Benk conseil municipal comité de gestion aussi Moussa Thiaw ñoom ñëpp ñu ngi fi donc vraiment dañ leen di gàttal di wax leen ne vraiment euh, kontaan nañ ci trop di turu waa Ndenaat dañuy tënk rek ne ñëpp nga xam ne ñoo nekk fii tey jii surtout mairie bi di def acte yu mel nii si lu lu jëm si Covid 19 bi dañ leen di ñaanal ñu nekk fi toujours toujours vraiment parce que euh, nit bu fekkee ne dañuy toog ñuy def ay actes yu noble yu mel nii ay actes social yu mel nii te xaaruñu ci dara dañ leen di ñaanal vraiment ñu yàgg fi te di ko fi def waaw. ñun daal vraiment am nañu mbégte trop si li nga xam ne moo fi ñëw tey jii nii au nom de tout Ndenate du ñu gàttal euh, du ñu du ñu guddal suñuy wax dañ koy gàttal ñu ngi leen di sant bu baax di sant maire di sant Baye Laay ñaanal ko mu yàgg fi vraiment parce que moom day jokkale rek seen mbir si biir si biir yoof dalul tey dalul tey vraiment quoi donc dañ leen koy ñaanal bu baax boo xam ne bi mu yàgg si suñu kanam ñu yàgg ni suñu kanam bu baax ñu ngi leen di sant bu baax. joxalante tuuti kàddu rek eh, kàddu yi nag kàddu yi ngërëm la ngërëm loo xamante ni ñu ngi koy gërëm ab Ablaye di xalif bi di jàppale bi nga xamante ni jàppalee ti lay wax boo xamante ni mu ngi koy jàppale communauté bi saa yu nekkee si njaaxare si wàllu mënta doon defe naa ne lii ñëw na pour ko donc ñun lu ñu man mooy lu dul ñaanal ko parce moom lépp loo xam ne def na ko ci Yoff gi du bette kenn parce que si loolu si la mas a taxaw donc loolu ñu koy ñaanal yàlla yàlla na def-def bi sax te yàlla may ko fan wu gudd ak wér waaw vraiment di profité aussi euh, di lancer appel rek parce que euh, sëñ Ablaye li mu def nii dafa am lu mu symboliser la mu symboliser mooy ka nga xamante ne moom la yàlla nattu tey mu nekk au cœur du système muy suñu frère Abla il Sarr a ah, dafay nekk devoir si képp ku mënta doon nekk si dëkk bi nga jog jàppale ka personnellement daf ñu war ñun ñëpp suñu devoir parce que tey eh, si état la ne mais moo symboliser état actuellement Si mu ne mën nañ wax ne ministre de la santé et eh, ministère de la souveraineté la deuxièmement dafa nekk ministère bu transversal actuellement

dogal na ko mu jóge si ministère muy juste les yi nga xamante ne moom la ñu war a euh, kenn ku ne war a aar sa bopp aar sa morom mu nekk une une notion boo xamante ni ku ne dafa war a am culture boobu parce que waruñu woon a xaar ba tey mais loo gis rek euh, kii du wees daal defaru du wees mais en tout cas ñu ngi bëgg di kontaan si moom Ablaye ni nga xamante ne noonu la nga xamante ne moom la moom la gérer mbir mi waaw vraiment ñu ngi kontaan trop euh, di gërëm leen gërëm bu baax. comme ni ko ñu imaam li man waxee euh, di gën a gërëmaat vraiment sëriñ Ablaye si taxawaayam yàlla na yàlla fenxa fana mu gudd lool baykat ak wér di leen gërëm dëkk yéen ñi nga xamante ne mm-hmm. aussi yéen indi ah vraiment kontaan nañu sama jarbaat ami topp maa ngi rafetlu bu baax ni nga xamante ne moom ngay jàppale sa sa papa ji donc euh, nit daal engagement la mm-hmm. nit loolu ne da nga si am engagement loolu mooy loolu mooy yoon si loolu ngeen ne donc ngeen sentir ne rek vraiment wa dëkk bi ñëpp ñoo nekk coordinateur rek ñëpp ñoo ñëw si kanam mais ngeen sentir wa dëkk bi ne ñu ngi seen ginnaaw dafa am solo donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla mission bi noble na yàlla na ko yàlla sottal vraiment kontaan nañu trop taxi ayatul kursi qul huwa allahu ahad salaatu boo mën rek nga teg kasi salaatul fatiha salaatu ala yonti yàlla ibrahim ilah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم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 di Njuufeen tànki ñëw la nemmeeku indi si participation xalifa général de Layène Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye si jàppaleem jëme ko ci Abdoulaye Diouf Sarr ak njabootu yoof gëpp ndax ku ne xam na ne tey jii ñuy wax fi yoof Abdoulaye Diouf Sarr moo ne si bopp yoof di ko yàlla mu yàgg si itam si lii nga xam ne dal na nu itam muy mbas mi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi yëpp tey jii lembek di ñaan yàlla yal nañu ko fi yàlla jëlal nu mu gën a gaawe di ñaan yàlla yal nañu ko fi yàlla jëlal nu mu gën a loolu moo waral tey sëñ Ablaye yónnee participation jàppale ko Ablaye Diouf Sarr jëme ko si njaboot gi yëpp di ñaa ñaan tam ngeen ka moom xalifa bi mu yàgg fi waaye ngeen ñaanal seen doom seen mbokk seen lépp di Abdoulaye Diouf Sarr moom itam yàlla may ka ndam ci lii mu song yàlla defal ko ci sutura ba lépp lu mu ci ragal yàlla na ko yàlla nëbb waaye lu mu ci yaakaar itam yàlla na ko yàlla woon di ñaanal e, njaboot giñ fi fekk yëpp jël teg ci loxo délégué de quartier bi ak imam bi mu yóbbaale dëkk bi yëpp bi may ñëw nag ànd ak doomu xalu général de Layen di Adja Astou Ndiaye Thiaw di mag ci Thiaw laay mi soxnas Ablaye Diouf Sarr ak Baye Seydi di set ci xalif general de line ak njabot gi ci dess yeb di ñaan yalla lepp luñ ci yaakar rek ci wéru yalla ñu ko yalla defal min shaytanir rajim la hawla wala xawatu illa billah assalamu alaykum ñu ngi lay di nuyu di len ziar euh ñu ngi wax ci baatu Njuufeen en tant que délégué quartier euh ñu am fii gan guñ fi yabal modi suñu sanga di sëñ Abdoulaye Thiaw moo fi yebal ki ñuy wax Thiaw Laye mu yebal fi magam mu ñëw fii di indi loo xam ne daf ko jàppale sëtam di jarbaatam di doomam mun alaaji Abdoulaye Diouf Sarr di suñu mbokk ñun ñëpp man miy wax ak yéen sama jarbaat la eh, yàlla nag moom mooy tege Eh, lii wàcc si moom si moom la war parce que moo nekk ci ci kii boobu eh, gis nañ ni mu ci taxawee ñii kii ko ilif tam gis nañ ni mu ko taxawee gis nañ daal senegal ni ñu déggoo ci mbir mi taxawee ko eh, lii nag suñu borom ba moo ko fi mën a dindi dañuy doole ñaan rek suñu borom ba lii mu si namm ak fi mu ko war a yemale mu yemale ko te ñuy ñaan rek mu gën a gaaw ci fan yi rek ñu mu jeex ci alhamdulilahi rabbi alamin ñu ngi sant ñëpp di gërëm euh, di ñaan sëriñ bi yàlla na ko yàlla dolli wér njaboot gi mu fi bàyyi aussi yàlla nañu yàlla boole seen ak déggoo ñu déggoo waa yoof comme ni ñu mel yoof te parce que yoof mooy laayeen mooy Cambérène mooy fépp waaw njuufeen a ngi nii xam nañ ko ko xam njuufeen xam histoire maam maam limaamu xam ne fii la sancam waaw njuufeen njuufeen peste bi moo tax ñu ñu waa Tongo tox fi ak ñeneen waaw parce que en en 1915 la ñu doxoo fii ñun yàlla def ñu dellu siwaat fi dëkkaat fi vers les années 89 90 et ñu am boobu xéewal ñëw fii nekk fi quartier bi yëpp koo wax si Sénégal wala ci Yoof dafa ñëwee quartier bi parce que disposition quartier bi ni mu mel la et loolu nag ñaanu mag ñi la woon et ñu ngi sant rek di ñaan yëpp di ñaan vraiment li ñu fi indi yëpp yal na si yàlla ñu may ñu ñu ma fekk ko tal ko te mu jeex si jàmm ak salaam loolu la ñaan ñun ñëpp yàlla nañu yàlla dolli wér. liñ ci bëgg yëpp yàlla ñu ci yàlla borom defal alhamdulilah rabbi alamin taxawaay imaam lañ fi nekk ak ñeneen. ñi mag ñi xam nañ ko mag yaxal nañu juróom yi mag ñi ñi mag ci quartier bi ñoo ko moom incha allah loolu eh, ami ak yooyu jox nañu eh, disposition matériel bi ni mu fi eh, kii bi ni mu fi ñëwee incha allah dinañ ci taxaw lii ngeen ci bëgg yëpp incha allah dinañ leen ko defal yàlla ñu ngi leen dolli ñaanal ngeen dolli ñaanal bu baax ngeen ñaanal ñu rek xale lañ te jiitu quartier maguñu fi ka mais nag euh, yàlla moo defal loolu euh, ku xam fi ñu soqee ko euh, leen ak Sambeen kër maama Ndeye Samba loolu nga xam ne ñun xale lañu mais set rek lañu la ñu yàlla ok ñu doo ngeen doo leen ñu ñaanal rek li ñu am si yéene bi ak ci karti bi ñun xam nañ ko xam nañ ko ñaanal leen ñu rek ñu fekk ko taal ko rek utu ñu si dara nag sant yàlla rek di di doxal si yàlla may ñu ak wér merci. waaw kon salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen baalu àq ci weer wi di ñaan yàlla yàlla nu yàlla boole jéggal di leen jotal nuyoo xalif général de Layène Seydina El Hadji Baye Abdoulaye Thiaw di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér ak wér la ak mboolem njabootu Seydina Limaamu Laay ak mboolem xalifay lislaam yëpp di leen eh, jottali itam eh, yóbbanteem si yéen waa Tóngoor nga xam ne ku ne ku ne Seydina Limaamu ne Tóngoor kon ne tongoor ne Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam fii la mbir mi tàmbale fii la lëpp nekk tàmbale mu ñëw fi tey ji si kàddoom moom xalifa bi andi ndimbalam jëme ko ci njabootam njabootam nag buñ ko waxee ku ne xam naa ni Abdoulaye Diouf Sarr kenn jiitu ko si ndax yàlla dogal na mooy meeru yoof kon moo jabootee yoof gëpp moom itam mooy ministre de la santé si mbir mi nga xamne dal na sunu kaw muy mbass mi dal ci aduna bi yep lembe ka di ñaan yalla yalla nañu ko fi yalla teggil bala mo yag seigne abdoulay yekiti ndimbalam dimbalee ko abdoulay Diouf sar pour njaboot gi nga xamne nek nañ ci ginnaw yep mu boot len li ko tongor ba ba ngay ag APEX muy ñaan ñu ñaanal ko mom khalifa bi yalla yok aw fanam li mu yag ka def ak yéen comme nim ka doon defee ak yéen ak ñi ko jiitu woon mu defaat ko tey di ñaanal Abdoulaye Diouf Sarr itam yàlla may ko ndam ci li mu song li mu ciy ragal yàlla na ko yàlla nëbb li mu ci bëgg itam yàlla na ko si yàlla yàlla na si yàlla fekki si di ñaanal waa Tóngoor gi ñu fekki si yëpp jël ñaan geeg nuyoo yëpp tekk si loxo chef du quartier mu yóbbaale comité bi ak njaboot gi yëpp di leen xamal ne si biir ndimmal mi sëñ Ablaye génne na ci mag ñi fàttaliku leen ndax mook ñoom la woon démb te ñu ñu leen di ñaan yàlla yàlla gën leen fi bàyyi ñu tànn si juróom nit ñi nga xam ne ñoom mag ci tóngoor ñu jox jox leen li muy seen suukaru koor ci baatu xalif général de laan Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw li ci des it ñu tekk seen loxo ngeen xool nan ngeen koy organiser waaye daal sëñ Ablaye daal la mu ci jublu daal mooy jàppale Abdoulaye Diouf Sarr ndax ku jàppale Abdoulaye Diouf Sarr rek jàppale nga yoof ndax kenn mënu wax yoof tey te tuddoo Abdoulaye Diouf Sarr ndax moo ne mooy bopp moo ne si bopp yoof ñu koy ñaanal it yàlla na ko fi yàlla na si yàgg te yàlla na si am ndam loolu daal moo doon kàddu yi bi may ñëw nag ànd nag doomu xalifa général di mag si yaa faati laay soxna Abdoulaye Diouf Sarr muy soxna Astou Ndiaye ànd ak Baye Seydi di di sët si xalif général ànd ak njaboot gi si des yëpp loolu moo doon kàddu yi di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla nangul sunuy koor barke Baye Laye ak Seydi kon ma jox kàddu gi délégué de quartier mu mottali. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal yàlla. Baye Abdoulahi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér wér gi yàlla na ànd ak ñokket ak ñaadam barka Seydina Muhammad eh, di leen nuyu yéen yi yéen ñi nga xamante ne yéen yéen ay ndawam yi mu fi yabal ngir lii nga xamante ne lii andi ngeen ko fi tey mu jëm si tóngoor gii eh, man day dama see def ak cant yàlla ngir bay Abdoulahi day kenn na du ne yàkka bi na gan ngir tongor gi du mané ne fi le seyna limam Seydina dëkk wante dama nan bayam Alassane Thiaw ax maamam Séni Thiaw ax maam Déthié Thiaw mafan ñoom ñëpp gi lañ juddoo bon ba ba eké la melni andi ko fi ci tongor ne da ka dimbalé wa tongor si mbass mi nga xamanteni mo am ci àdduna ñu la ñaan yàlla yàlla na yàlla ko fi yàlla gaaw a jële yàlla nanu bokk si ñi nga xamante ne ba ëllëgee ñoo kaa nittali suñuy sët bi urmati rasulillahi sallallahu alayhi nga ñaan yàlla bay ab la yàlla na fi yàgg lool te lool gi ànd ak wér eh, lii nag ak sant yàlla ngi si ngir bu fekkente ne yàlla def na dimbalante leen ba ka fi keneen andi woon kadul bay ab lay day bon dina ne ab jam-jam laa doon wante alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamante ne moom si boppam moo jël initiative bi jàppalee ko doomam jàppalee ab goraam ngir mu jàppalee njaboot gi nga xam ne ñoo ufu si ginnaawam loolu danoo man lu dul di sant yàlla ñaan yàlla yàlla na man gi yàgg te feebar bi it yàlla na fi gaaw a jóg nag barke Seydina ñu la ñaanal yàlla Ablaye Diouf Sarr eh, mi nga xamante ne bii moo la moo sunu doom la sunu jarbaat la sunu rakka la si li nga xam ne lii moo tegu si kawam mu la coono bu mettee méttee métti wax dëgg yàlla ngir boo fekkee ne bés bu nu xëyee ñu ngi déglu ñu ngi déglu kàddoom ñaan yàlla it yàlla sa saafara jàngoro ji bis ba jot ñu loo déglu kàddoom vraiment euh, ba ba nu amee kilifa ga mel ni Baye Ablaye yëg loolu ñëw jàppale ko si li nga xamante ne si la nekk si coono yooyu la nekk ngir ngir oyofal ko ko duñu man lu sant si yàlla ñaan yàlla yàlla na yàlla nangu lépp bi urmati rasulillahi sallallahu alayhi wa wax am na nu mbégte lool kontaan nañu bu ngeen demee daal ni leen Baye Ablaye daal sa njaboot sa njaboot sa njaboot ga sa songoor sa njaboot ak maam sa njaboot ak Baye am na ñu mbégte ñu ngi leen ñaanal yàlla si turu mag ñi ñu ngi ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal taxawaay bi yal na yàlla barke lépp bi urmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim bon nu ànd ñëpp sant borom bi tabaraka wa taala ginnaaw ginnaaw bu nu musoo seytaane جانغ فاتحة آيات الكرسي الإخلاص فليه الناس أصل نتجيكو صلاة الفاتحة اللهم صل على وخدمنا وخرنا برحمتك يا يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم اجعل خير أمرنا أخيره وخير أملنا خواتمه وخير أيامنا يوم الإخايق إنك لا تخلف الميعاد يا ربنا يسر لنا المراد يا الله يا من بالدعاء أمر ألا لسان المصطفى وبشرا ببركة أحم وشفك وحلح وبياس شرافهم بأرمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتكم فيه السلام وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آه، كون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم leen لين دي di دي لين زيار دي لين àq di ñaan yàlla يالا nu yàlla boole jéggal te nangul ñu suñuy koor di leen jotal nuyoo xalifatul muslimin Seydina El Hadj Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool yàggu ànd ak wér ak wérle ak mucc ak muccale yàlla defal ko mboolem xalifa lislaam yëpp di eh, yëgal na rek suñu ñëw tey bi délégué tànki nemmeeku la ak ziyaara jóge jóge ci xalifatul muslimin comme ni ma ko waxee sëñ Ablaye jëme ko ci njabootam moo ne njabootam nag yoof gépp la si li nga xam ne dal na sunu kaw jamono ji ñu toll muy mbas mi lëmbe àdduna gépp ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ko fi yàlla jëlal nu mu gën a gaawe sëñ def jàppaleem ci Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne si moom la lii dal muy ministre de la santé yàlla dogal muy meeru dëkk nga xam ne yoof képp ku yeewoo yoof tey sëñ Abdoulaye juuf saar moo la jaboote sëñ Abdoulaye jàppale ka si njaboot googu lii tey ji mu wàccee ko fii parce que yéenee teg si loxo yi waa Sikaab jaare ko si Abdoulaye Diouf Sarr di ñaan nag ngeen ñaanal ka bu baax moom xalifa mu yàgg fi ak njaboot gi yëpp waaye ñaanal Abdoulaye Diouf Sarr tam mi doomi dëkk bi yàlla may ka ndam ci lii mu song muy mbas mi yàlla may ko si ndam lépp lu ci ragal yàlla na yàlla nëbb lu mu ci yaakaar itam yal na ko yàlla defal di joxe nuyo xalifa bi rek teg ko si sa loxo yow mi délégué de quartier bi di kilifa gi nga wàccee ko si dëkk bi yëpp yóbbaale ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw asalaamaaleykum xanaa rek di am mbégte ñi leen teeru ak ni ngeen ñëwee di ñëw bu am solo ci turu quartier bi yëpp maa ngi leen maa ngi leen di wax dal ngeen dal ak jàmm macha allah lii moom euh, du guléet moom lu mu tàmm def la lu mu tàmm def la te fi mu ko defit foofu la yellu te nii ma déggee da koy jàppale Abdoulaye Diouf saa lu am solo ndax Abdoulaye Diouf da xale boo xam ne xale bu jar a jàppale la Yoff la dëkk waaye mi ngi liggéey kéem kàttanam ci lépp loo xam ne euh, day aar dëkkam day aar askanam waaw bërk démb laa ko doon fàttali fii may nañ ko jar jàppale macha allah ndax ndamam mooy suñu ndam waaw ndamam mooy suñu ndam kon nii ngeen def ni ah, deful leen ko Abdoulaye Diouf Sarr rek de Sénégal gi yëpp ngeen ko def defal waaw Sénégal ndax jamono ji ñu toll ni nga xam ne jamono jamonoy mbas la nga xam ne nit ñi dañuy tàggoo seen sago nit ñi lu bëri dañ koy ñàkk ci seen alal wala la nga la nga mënoon na mën la nga mënoon mënatoo ko ah bu nu geestoo kilifa gu toll nii sëñ Abdoulaye nga xam ne daanaka mooy suñu kilifa ñu ñëpp mën cee def lii duñ def lu ñu sant ko du ko gëm di ko ñaanal yàlla nag yal na ko yàlla guddal fanam yàlla guddal fanam lool yàlla dolli wéram ah, dolli kàttanam te bu ngeen delloo ngeen yëg ne ñun yëg nañ ko yëg nañ yi jëf yi ngeen def kon ñu ngi leen di sant di la gërëm waaw kon bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di yëkkati nuyoo bi di ko teg si loxob sëy mu jotal ko quartier bi yëpp ak soxna si mu àndal di ñaanal yàlla sëñablaay Ablaye mu yàgg fi loolu yàgg ko ànd ak wér ak wér la ak mboolem xalifay lislaam yi suñu tànki tey ji tànki nemmeeku la ak ziyaara jële ko ci xalifatul muslimin Seydina El Hadj Baye Abdoulaye Thiaw mu doon tànki nemmeeku si mbir mi nga xam ne dal na suñu kaw muy mbas mi nga xam ne mu ngi lëmbe adduna bi yëpp di profité di ñaan yàlla yàlla nañu ko fi yàlla jëlal balaa moo yàgg sëñ yëkkati teraanga jëme ko ci njabootam muy yoof gëpp teg ci loxo ki nga xam ne moom la yàlla teg si boppu yoof muy Abdoulaye Diouf Sarr mu jaboote yoof gëpp tey jii ba pare muy ministre de la nga xam ne mbas mi lii xew nii si kawam la dal ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko si ndam sëñ Abdoulaye yëkkati loolu teg si loxo am jàppalee ko pour njaboot gi yëpp looloo waral tey suñu tànk fii démb ba tey ñu ngi wër si quartier yi tey ñu ngi fii ànd ak soxna Astou Ndiaye Thiaw di doomu Serigne Ablaye di mag si soxna caw Laay mii soxna si Ablaye Diouf Sarr di profité di leen ñaanal yàlla eh, ñuy sàkku si yéen itam ngeen ñaanal xalifa bi mu yàgg fi lool mais ngeen ñaanal Ablaye Diouf Sarr tam yàlla may ka ndam ci lii nga xam ne dal na ci kawam lim ciy ragal yàlla nëbb ka ka lim ciy yaakaar itam si lu baax yàlla defal ka ka loolu moo nekkoon kàddu yi di leen teel delloo kàddu gi wa axiru daxwaana anil hamdu lillahi rabbil alamin maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant chef de quartier moo ñu moo ma woo léegi léegi fekk ma aman benn mission bu bu ma xam ne ma la doon dox pour quartier bi mu ne ma naa daw si ñëw si jàkk ji parce que xalif bi dafa am geste bu mag a mag bu mu def pour doomu doomu aadama yi jaarale ko si maire bi maire bi nag nee na mu ma meer baa ngi ñëw léegi si jàkk ji pour indi ko moo tax ma daw léegi ñëw man nak legui comme que sama sama kilifa ñëw na chef di imam ratib ak responsable femme yaa nga ñuy toog si galaay bi nga xam moy mooy sa politique bi dafa genn nekk fii yëpp xam boo démé mi ci affaire mi ngi mi ngi kii bo démé mi ngi ci quartier bi mais xam khalif nga ñuy khalif ba nga ñuy toog taxaw mu jox ko parole bi alaykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu de di ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonante bi ñu ngi leen di sante Eh, jëf ji jëf ju màgg la ñu ngi koy rafetlu eh, lii nag bettunu ngir fa mu jógee ko mag moo fa ne muy xalife bi ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla dolli ko wér yal na yàlla jàmmal ko jàmmal eh, njabootam mbir mi nga xam ne mii moo moo dal ci réew mi yàlla mi ko mi ñu ko teg yàlla nu ko teggal si jàmm ak salaam. ñu ngi lay yóbbante yow soxna si e, ci turu quartier bi de mm, xamee ni ñu am nañu mbégte lool ñu koy sant di ko ñaanal yàlla di ko ziyaara di ñaan yàlla yàlla yàlla gal ko sunu kanam yow mi yow mii ko fi teewal aussi ñu ngi la koy ñaanal di ko ñaanal mbooloo mi nga àndal e, comme ni nga ko waxee rek di ñaanal ministre bi aussi Euh, ñoom seen mission lu rëy la te euh, li ñu liggéey lépp njabootu Sénégal gépp a tax yàlla yàlla may leen si ndam ngi bég di leen ñaanal yàlla amuñu seen pay yàlla moo am seen pay yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla gërëm leen ngi ñaan mbëta mi yàlla na yàlla teg ko Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant di leen massawu di leen baalu ak di leen baal àq di ñaanal ki leen tax a jóg mu yónni leen yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàggal ko fi lool ba muy raam ci barke maamam lii bettuñu kontaan nañu macha allah kontaan nañ ñun ci njabootam lañu bokk ñu bokk ci njabootam mu nemmeeku njabootam ba boole ñu ci ñun kontaan nañu dañuy amuñu lu may daal ñaanal ko ñun di ci euh, kiiwu jigéen ñi nag laay waxal ndax maay responsable du jigéen ñi macha allah gannaaw ba imam bu waxee ba pare ak sëy ñun jigéen ñi ñu ngi leen di ñaanal daal di leen massawu yéen tamit mbas mi yal na ko yàlla delloo fa mu jóge woon mun na ko moo yor garab gi yal nañu ko fajal ci barke Mouhamed sallallahu taala salaam kontaan nañu macha allah yal na yàlla kontaan ci yéen yàlla na ko yàlla jàppalam lépp oyof ci barke salaatul fatiha yàlla na lépp oyof ci moom lii yàlla na ci jóge am ci mbégte mu rëy a rëy rëy rëy na ko yàlla jàppale yàlla mi am loxo di ko jàpp yàlla na ko jàppale ci barke salaatul fatiha seetaanul kenn macha allah seetaanul kenn ku nekk sa paar yaa ngi koy jot kon yàlla na ko yàlla dimbali dimbali ñu dimbali mboolem ku lu jullit di leen massawu di leen jërëjëfal wasalaam APEX si kontaan nañu macha allah jërë ngeen jëf laay آية الكرسي سورة إلا أصف علينا قبل من الصلاة فأنت السميع الأليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا من المتقين بصلاة تنجينا بها أبدا جميع الأقوال والأفات يا الله آمين رسالة بها تهدي لنا أبدا جميع حاجاتنا يا الله آمين رسالة بها ربي تطهرنا من جملة السيئات ربي رسالة بها ربي ترفعنا أعلى من الدرجات آمين صلاة بها ربي تبلغنا أجل أقصى من الآيات يا الله يا ربي في الخيرات جملتها عند الممات وبعد الفتح آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام آه، السلام عليكم ñu ngi leen nuyu di leen ziar di ñaan yàlla yàlla nanguñ suñuy koor di leen baalu àq di ñaan yàlla yàlla nu yàlla boole ñu ngi leen di jotal nuyoo xalif général de Layène Seydina El Hadj Baye Abdoulaye Thiaw di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool yàgg ànd ak wér ak wér la ak njabootu Baye Laye alayhi salaam gi ci ginnaawam yëpp di ñaanal xalifa lislaam yëpp suñu tànk tey jii fii si APEX 2 tànk ñu nemmeeku la ziar si ak yi indi yóbbante kilifa gu mag di seen i Ablaye jëme ko si njabootam. ci li nga xamne yalla yàlla nattoo nanu ko mu dal suñu kaw ñun ñep muy mbass mi nga xamne mu ngi ci aduna bi yep di profiter di ñaan yalla yalla nañu ko fi yalla jëlal bala yag sëñ Ablaye yëkkati ay teranga dimbalé ka njabotam yoof dalé ka tongor ba laayeen jaare ko nag si Abdoulaye Diouf sar mi nga xamne mom la yalla dogal mu ne ci bop yoof ilif yof ga nga xamne ku yewoo yoof rek ci njabotam nga bokk tay mom Abdoulaye Diouf sar sëñ Ablaye jappalé ka loolu ci njabot gi ñu profité dem di ko ñaanal yàlla moom sëñ Ablaye yàlla bàyyi ko si kanamu njaboot gi waaye ñaanal Ablaye Diouf Sarr itam ba lii nga xam ne mu ngi si kawam muy mbas mi te muy moom ministre de la santé yàlla may ko si ndam teggil ka ka balaa yàgg lépp lu mu ciy ragal yàlla na ko yàlla nëbb lu mu ciy yaakaar itam yàlla na ko yàlla defal leen jotal nuyoom ak nuyoom xalifa bi ngeen jotal ko APEX si gëpp di ñaan loolu daal moo doon kàddu yi bi ma ñëw and nak soxna asu ñay ciow ki doomu Serigne Ablaye la di maxi si lay mu soxna si Ablaye Diouf sar ak Baye Seydi dien di set si khalifa bi ak soxna ya la andal ñoo la andal bi may ñëw lool mo doon kaddu yi delloo leen kaddu yi asalaamaaleykum. jërëjëf jërëjëf euh, euh ñu ngi leen di nuyu di leen wax bismillah ci penc mi la man mii di wax ak yéen ngeen fekk ma fi maa ngi tudd Yaxya Ndoye di président comité de gestion quartier bi nga xam ni moom moo nekk nii te di taalibe ci yoon wi moom tamit mooy Ousmane Ndiaye moom mooy délégué de quartier nekk tamit bilal fii ci quartier bi kon daanaka fekk ngeen fi daal ñi nga xam ne ñoo yore quartier bi eh, gannaaw imaam yi ak ñeneen ñi nga xale yi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. Euh, te incha allahu rabbi ñooñu ñëpp ci ñu ko euh, di defee rek fii ci quartier bi lépp lu fi ñëw ak lépp lañuy def dañu koy nasan nas wax ci déggoo ci juboo ci door ko def euh, incha allah dana yegg ci ñi nga xam ne mooy commité de gestion bi lii nag wax dëgg yàlla mbetteel bu rafet la mbetteel bu neex la ndaxte ñun ñëpp xam nañu ni territoire bi territoire mu am di maamu laay la alayhi salaatu wasalaam fii ci yoof moom eh, defe naa ni amul kenn ku mu bokkalul amul kenn ku mu bokkalul eh, ba ci lu raw yoof du gën a sore yoof te li mu woote tamit ñépp xam nañu ni du waa yoof rek la woo addina bi yëpp la woo te bi mu ko oowee ba léegi tamit amul lenn la nga xam ne wàññeeku na ci dañuy dem muy yokk rek macha allah te humanisme bu nekk ci biir tamit ñëpp gis nañ ko ràññee lañ ko euh, kon ñun du ñu def lu dul sant yàlla te lu jógee ci nga xam ni moom mooy loxo sanga bi nu ñëw di dugg ci quartier bi di ñëw dugg suñu loxo loolu ñun suñu bopp su doon saabu dañu kon yàlla def na ni ñun tax nañ ci waaw. danañu war dimbale ñu setal surtout ci bés yi nga xam ne ci lañuy ñu toll nii ci koor gi ñu koy sante yàlla nag bu baax a baax a baax a baax a baax a baax e, lii du discours teg ci bët rek la xam dayo bi xam solo bi xam tamit lii ci sàng bi la jóge kon man de <coughs> dama doon wax ni lu fi ñëw daal nañ ko boole moom tamit loolu mais danaa si jël benn saabu wala boog jël ci benn paquet ab suukar mu dugg sama kër ndaxte fi mu jóge moo tax ñu ngi leen ci sant di leen gërëm <clears throat> surtout yi nga xam ni <clears throat> baa leen ma euh, yéen a ko indi ah gannaaw sëriñ bi nag soxna si tamit wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di ko sant mooy sunu soxna di sunu sànq tamit mooy soxna Abdoulaye Diouf Sarr euh, moom lii miin nañ ko ci moom defe moom li tongor be lain be dugg ci apex léegi ba li ko weesu ay teraangam ma nga fa guddi ak bacc lepp luñ fi mossa a yëngu ak luñ fi mossa yëngal def na ci loxom ñing ko ci gërem di ko sant kon li su ko ne nañ ko yobbu fi xamna ni bokul ni mom bok na ci ñëw eh, bok na ci ñi nga xamni mom wala ma sooke ne lii pour li ñew fi parce que min nañ ko ci penc bi tamit wax deug yalla eh, amma nak li xew mooy <clears throat> li nga xam ne moom mooy feebar bi dugg ci biir dëkk bi feebar bi de man gëm naa ni li ko fiy jëlee ay ñaan la li ko fiy jëlee ay ñaan rek la du leen ndaxte laal nañu nekk làmba nañu lu nekk mu ta yàlla nag moo wane boppam li mu wane boppam mooy puissance ba nga xam ni tey su su ko neexoon raataale Sénégal tey léegi léegi léegi dans cinq minutes mu am ko foofu ñu nekk noonu foofu la ñu bës benn bouton rek yàq dëkk bi yëpp. am na la nga xam ni li tubaab dox l'infiniment plus petit li gën a tuuti tarfatal ay na ñëw na lëmbale àddina bi te mënuñ ci dara te te ñooñu la commencé di ko di yàq te kenn mënuñ ci tus kenn mënuñ ci dara kon suñu demee ba ñi nga xam ne gëmuñu ñu gëmuñu dara si ñun gëmuñu nit ku ñuul gëmuñu dara ñu taxaw ñuy wax nañ leen ñaanal c'est que booba jaaxle nañ kon ñu ngi tàllal suñu loxo di ko tàllalaat di ñaan ngeen jottali ñu sunub ñaan ci eh, kilifa gi nañu ñaan ñu ñaanal adina bi ñaanal dekk bi ñaanal ñep parce que man wor na ma ni ñaan rek ko fi jël du leneen te yaakar nañ leen ci nak wax yalla abdal abdoulaye sar nak, nag dañ koy ñaanal yalla parce que fu ñu toll nii abdoulaye juf sar yof, abdoulaye du nga paru defenen feneen saru Senegal la afrique la adina bi la lu ma wax lool moy liñuy xéxal mo day nonou ponkal mi nga xamni mom lañu jakar lol suñu ne suñu dom mom mo yore combat bobu jiite ñu nekk général jiitu ci kanam duñu ko ñaanal lu yalla na gagné ci combat bi parce que su ci amé ndam su ci amé ndam ci ñaanu mag ñi sénégal am ndam afrique am ndam adin bi am ndam kon ñu koy ñaanal yalla na yalla may ndam ci walu wile Li yalla defal ñuko ci nimu gënaawé ci ñaal ci ci ci ci ci ci euh euh suñu kilifa mu fi te lu mu gën a teele kon daal wax ji gudd na ngeen ma àq damaa mel na ko xaw a aalu sax <laughs> wante nañu ma bàyyi rek nga xam ni que moom mooy kilifa bi moom moo fi nekk nekkal fi maire nekkal fi askan yi bi tamit moom mu sànn mu sànn ci kàddoom bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min asheytaan rajim la xawla wala xawata illa billahi aliyil azim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi nuyu mbokk yëpp di jox suñu siyaar Baye Abdoulaye Thiaw Laye xalif général de Layeen di ko ñaanal yal na ko fi yàlla yàggal yal na ko yàlla defal wér defal ko wér mboolem jullit lii nag am fii tey jii mu am mu fi yónnee jaaral ko si doomam ak Abdoulaye Diouf Sarr ministre maire de la commune de Yoff dafa men dafa répété rek la maamam waxoon Seydina Limaamu alayhi salaam lu ngeen am jël leen lu ma am ngeen ñëw ma bokk ak yéen loolu la répétition la am nañu fi benn exemple fan yi rek ñu dem seetik doomu paparaan ji cabalaay loolu la wax dañ ko doon bëgg bind si ñi ñu jox mu ne ñun ñoo war a joxe loolu la wax donc loolu rek laa si doon dolli lii bàyyee Yaxya wax jotale na lépp waaw kuy xeex nag man benn baat kuy xeex da ngay xeexal looy gisal looy gis fi mu nekk ñun ñëpp dañu war a tàllal suñu loxo ñaan suñu borom li nga xam ne moo mu am moom mu jële ko fi mais combat warul am suñu diggante diggante nit ak yàlla mënul nekk mënul nekk ndax Seydina Muhammad keroog ba muy si tibb suuf si de sànni yàlla daka ne yow sànniwuloo man mii maa sànni maa ramayta is ramayta wala kii na laahu rama moo sànni keroog donc yàlla mii sànni lii mu wër àddina bi yëpp moom rek moo ko mën moo ko fi mën a jëlewaat mais du benn du xaalis du alal du leneen ñaan rek moo si mën dara yàlla defal waaw amin ya rabbal alamin axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñaan kon bisimillahi rahmaani rahim salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal wax ci weeru di ñaan yàlla yal nanu yàlla boole jéggal di leen jotal nuyoob xalifatul muslimin Seydina El Hadji Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ci njaboot gi ñu fi fekk tey ji tekk ci loxo bi de ci ak Assane ñu jotal ko mboolem kuy yeewoo si APEX bi rek sëñ Ablaye mu ngi lay ziar mu ngi lay nuyu mu ngi lay nemmeeku ñu ñëwoon fi tey si ndigalam indi lii nga xam ne mooy teraanga la jëme ko si njabootam njabootam nag yoof gëb la ñu ngi tàmbalee tóngoor teer si fii tey ji ngir li nga xam ne dal na sunu kaw ñun ñëpp ñu gis ko muy mbas mi nga xam ne mu ngi sunu kaw di ñaan yàlla yàlla teggil nu ko nu mu gën a gaawee sëñ Ablaye nemmee jàppale si njaboot gi jaare ko nag si Ablaye Diouf saar mi nga xam ne yàlla dogal na moo ne si bopp yoof tey jii ku yeewoo yoof rek si njabootu Ablaye Diouf Sarr nga ne sëñ lay yëkkati lool teg si loxoom pour mu jàppalee ko waa yoof gëpp loolu moo waral suñu tànki tey jii di ñaan yàlla ngeen ñaanal xalifa bi mu yàgg fi lool ak njaboot gi yëpp ak xalifa lislaam yëpp waaye ngeen ñaanal ba li nga xamne ne songa na ko may ko ci ndam lim ci ragal yalla neub ko ko lim ci yaakar ci lu bax yalla defal ko ka mo don kaddu di ñaan yalla yalla nañu yàlla jàppale balaa yag mbass mi joge fi ñu delluwaat ci suñu activité yomb na yalla yalla naka yalla def wa def alaykum wa rahmatullah euh, alaykum mbokk yi alaykum mbokk yoof gannaaw buñu sante yalla yàlla julli si yoon salaa salaam ñu ngi baalu wax ñepp di bal ñep ax di ñaan yalla nañu yàlla musal si mbaax mi te yalla teggi ko di am mbekté ndëkk ci li nga fi muy teranga mbekté yi nag ñaar la ndax teranga ji reyna na su ñun waye nag gënati naa rëy sa kamu joggé muy seigne Abdallah di ñaanal Baye ablay yalla nako yalla yagal ci kanam jabot gi yalla nako yalla doli wër defal ko ko defal ko suñu jabotum maam gi yépp fa deug yalla lay matar deug yalla li mom du ñu ne guléet ndax fa dëgg yàlla yàgg naa taxaw njaboot gi ngoon lii bu amee fa dëgg yàlla dañ koy santati di ko gërëmati ah ndax fa dëgg yàlla fii ndëkk bi toll ñëpp jaaxle nañ waaye jaaxle gi lii leen gën a jaaxal sax mooy ku si nekk la nga doon liggéey yaa ngay tiit si li ngay liggéey ngoon ku yëkkati dund jox la ko si jamono jii fa dëgg yàlla moom day taxaw na njaboot gi wane na mooy bàyyi waa yoof gépp waaw wane na mooy seen sëriñ wane na mooy seen yaakaar ngoon nag fa dëgg yàlla yàlla bu tas yàlla tas yaakaar ñun fa dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal di ñaanal njaboot gi yëpp di ñaanal nag suñu mbokk suñu ministre suñu maire Abdoulaye Diouf sar fa dëgg yàlla ah bi day diis na lool ndax kat ñu fal la ministre de la santé nga tombeex mbas mu toll nii jaaxal adduna yëpp fa dëgg yàlla yeen bu diis la waaye yàlla mi mën a oyofal yàlla na ko yàlla téeñal yàlla na ko yàlla ndax ñun ñëpp nag muy Sénégal muy aduna ñëpp ku ne war na koo ñaanal ndax kat li nga xamantene bu teggee ko ci kawam teggee ko suñu kaw ñun ñëpp fa dëgg lo tax ñu war ka ñaanal ngon rek si turu APEXI 2 est est bi nga xamantene jibril jien mi taxaw mom moy délégué quartier bi si turu imam El Hadj Malick Dieng si turu comité gestion bi yépp fa dëgg yàlla ñu ngi leen di sant fa dëgg yàlla leen wax ne teranga ji egsi na yàlla yàlla na teranga yàgg seen loxo fa dëgg yàlla di sant mbokk yi àndante allah ji yépp ñëw nag andi mbir mi fa dëgg yàlla kontaan nañu trop yàlla na yàlla fay si barke weeru koor gi koor gi yàlla bu doon mujjee koor lépp luñ si jàmm yàlla na ko yàlla nangu lépp loo xamante ne safaan la yàlla na ko yàlla dàqal mbas mi yàlla na ko yàlla teggil fa dëggal ñu daal kontaan nañ sant nañ ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal sëriñ bi di ñaanal njaboot gi ahlu bayti gi yëpp fa dëgg yàlla wax ne daal fa dëgg yàlla di daal tubaab fakàlla kontaan nañu torop kontaan nañu torop bu APEX 2 daal ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko dolli ñaan loolu daal mooy leen kàddu kon bismillahirrahmanirrahim rahmaani euh, rahim ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di yëkkati nuyooyu ak ziar di ko teg si loxob imam mu yóbbaale ak moom euh, délégué de quartier bi yóbbaale dëkk ko euh, quartier bi yëpp nuyoo yooyu nag jële ko ci xalif général de Layène Seydina El bay Abdoulaye Thiaw di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool yàgg fi ànd ak wér ak wér le ak mbollem njabootu Baay la alayhi salatu wa salaam gi ci ginnam ak njaboot eh, kilife diina yep suñu ñew tanki tay ji tanki nemeku la tanki siyaar si la tanki set si len si li nga xam ñun ak yeen ñoko ko bokk mu dal ci aduna bi yep muy mbass mi nga xam ñepp ngi koy lembe na aduna jaaxal aduna bi yep waye nak jaaxalul yalla ñu ñaan ka yalla teggil nu ko nu mu gëna gaawé gaawe sëñ jëlone ay teraanga fas que yéene séddale yoof dale ko tóngoor ba fii ñuy ak si tey jii ndax moo jaboote yoof mais na si jàppale gi mu jàppaleek Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne mooy maire yoof ba pare tey yàlla dogal lii dal ci kawam muy ministre de la santé ku yeewoo yoof ngay njabootam nga bokk ci njabootam sëñ Abdoulaye yëkkati lii jaaraka ci moom jàppale ko yoof gépp ngeen ñaan ñu ñaan yàlla yàlla dimbali ñu ba li tax lii ñu def ko muy mbas mi yàlla jëlal ñu ko fi moom sëñ Ablaye yàlla bàyyil ñu ko fi ak kilifa diine yéen ñi ñu fekk itam yàlla defal leen jàmm waaye ñu sàkku si yéen ngeen ñaanal ko ñaanal Ablaye Diouf Sarr ndax ñaanal Ablaye Diouf Sarr mooy ñaanal sa bopp ndax mooy yoof yoofay moom te lii daal si kaw metti na waaye nag jaaxalul yàlla comme ni ma ko waxee nañ ko ñaanal yàlla yàlla may ko si ndam yàlla siggil ko si ba lépp lu mu yaakaar yàlla defal ko ko waaye lépp lu mu ragal yàlla na ko yàlla na nëbb loolu moo doon kàddu yi di sàkkuwaat si ñaan si yéen di baalu àq ci weer wi di ñaan yàlla yàlla na yàlla boole jéggal koor gi yàlla bu mu doon suñu mujjantalu koor yàlla nañu ko fekk ay ati ati ati barke bàyyi la ak Seydi loolu daal moo doon kàddu yi wasalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla di julli ci yonante bi sedd bi sallallahu alayhi wa di am mbégte dalal leen tatagal leen nangu li nga xam ne mooy ndimbal bi jóge ci xalif général Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na yàlla gën a fex fat wi yàlla gën a wéral cër yi gën kaa bàyyi sagoom sagu diine ji la sagu diine ji la sagu yoof la sagu senegaal la yàlla fu nekk a taxaw na fa tàntal fa diine fu nekk taxaw na fa diine bon rek ñun lii ñu war mooy ñu ñaanal ko yàlla gën kaa bàyyi ci kanam njaboot gi te gën kaa bàyyeex sagoom gën a wéral cër yi yalla dogal njabot gi top ci gannaawam yëpp itam yalla eh, tagatal ba ñom ñepp ñu déggal ko ñom ñepp ñu nangul ko ñoom ñëpp ñu di jappalé ni mu ware parce que buñu ñu ko defee defaluñu ko ko mom diiné ji lañ ko défal yalla nako yalla def si daraaje sayyiduna Muhammad eh, li nga xam ñew na ni di mbass mi ñu ngi siy sante yalla bu baax kon dañuy wax alhamdullilah ala kulli hal sante si yalla ndax yalla moko wacce bëgg ñu jangasi si mi ñu si wara am nek le julit bu si nek wala kilifa gu si nek jangat mi ngi ci wara lolu moy li suñu xamee message bi ñu yàlla yónnee ci lii rek yàlla dana ñu dimbali teggil ñu ko nu mu gën a gaawe bokk na ci message yi mooy ne àddina bi yëpp ñu ngi tëj jàkke yëpp parce que ñun dañuy julli ji te suñu xol julli jiwul dañuy julli ji waaye sunu xol julli jiwul parce que lii ñu yéene sunu bopp yéenewuñu ko ñeneen bu fekkoon ne bu ñuy julli ji àndale nañu ak xol bu laab bon yàlla du tëj luy jàkkar waaye moom la ñu diine sante woon ci sunuy diggante ñi génnewul woon asaka yëpp ñu ngee gaawatu di génne di am ndimbal def ko ci kii bi asaka ya ñu deful woon yàlla moo ne woon ne su ngeen koy génnewul day moom day ñëw jël asaka yi màbbaale la fa desoon la fa waroon a des yëpp la asaka yi yóbbuwaale parce que dañ ko waroon a génne ni ko yàlla santaane defuñu ko waaye fi mu nekk nii kenn ku si nekk ndig yaa ngi génne lu ëpp asaka di ko di ko def ci kii bi beneen jàngat bi ci amati mooy ne ñun ñëpp dañu doon boo ñëwee ne ma dama nekk si xaajo ma waatal la ne la do fekkoo ko fi te fekk sama magasin ngi fees walla sama poos a ngi fees walla sama banque ngi fees waaye tey fi tey kenn xaaratul kenn ku si nekk mu yàlla ndëkk nattoo ñu ñun waa Yoof ñuy njabootu Baye Ablaye Baye Ablaye jaboote Ablaye Diouf Sarr Diouf Sarr yalla dogal mu yor ministère bi nga xamné moy ministère de la santé bolé ak Yoff bon mbas mu melni su ñëwé ñun ñëpp ñu wara takku jappalé kaddom doyon na mom Baye ablay waye mu ti nag ne mo jaboté ñëpp bon du ci xaar kenn mu def jëme ci pénc ñun suñu wa muy cité Apexi écologique ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal wér ak wérle yàlla seral gannaawam njaboot gi dal àndaax tey te déglu ko déggal ko yàlla na ko yàlla def mu yàgg ñoo jiite lii bu ñu sañoon dañuy woo dañuy woo yëpp ñoom ñu na fekkee bi ñu koy recevoir waaye nag bu soobee yàlla danañu def suñu kem kàttan mu àgg si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën allah taala parce que ñu ngi jël registre national unique moo nekk sunu base ñaareel ba mooy lépp lu fi masaan a dugg si ndimbal jëm ci néew ji doole wala kii amoon nañu liste base boobu ñaar yooyu la ñuy sukkandiku di si liggéey pour jotale ki dinañu au comité bi nga xam ne daje woon nañu bu bu euh, fan yi danañu leen oo ñoom ñu réceptionné ko ba pare ñu door a jëm si distribution bi ngir bañ leen a téye lu yàgg ñu ngi ñaan lu ngeen man ren yàlla na ngeen man déwén lu ko ëpp yàlla na yàlla wéral cër yi yàlla suturaalal leen boppam jàmm yàlla yëpp yàlla na ñu ko yàlla nangul suñu ko nangule yàlla na ñu yàlla wasaareel ñu ko si jullit yépp yiw wi teraange yëpp yàlla nañu ko bokk ak jullit yëpp yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal mbas mi nga xam ne moo jaaxal àddina bi yàlla na ko yàlla teggi ci darajay sayduna muhammad allahuma bi nuurika wa jalalika wa bi xaqi haazal ismil axzam wa bi xaqi nabiyika muhammad sallallahu alayhi wa sallam in tahdiya xaajaati يا الله يا الله اجعل هذه حجة في حاجتنا دنيا وأخرى بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وكن بسم الله الرحمن الرحيم salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal wax ci weer di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole jéggal di yëkkati nuyoo bi ak ziar bi tekk ci loxo chef de quartier bi ak imam bi mu yóbbaale quartier bi yëpp di leen jotal nuyoo xalifatul muslimin Seydina El Hadj Baye Abdoulaye Thiaw di koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu yàgg gu ànd ak wér ak wérle ak mboolem njaboot gi si ginnaaw ak mboolem xalifay lislaam yëpp tey jii nag sunu tànk tey jii dañu ñëw seet si APEX 3 si ndigalal xalifatul muslimin Seydina El Hadj Ba Abdoulaye ci lii nga xam ne dal na sunu kaw ñun ñëpp ñu koy dund muy mbas mi nga xam ne mu ngi sunu kaw lëmbe àdduna bi yëpp di ñaan yàlla yàlla teggil nu ko sëñ Abdoulaye dundandoo ko ak yéen yëkkati ay teraanga jaare ko ci Abdoulaye Diouf saar jàppale ka ka moom mi nga xam ne mooy kilifa tey bopp moo ne moom la yàlla si boppu yoof tey muy jiite moomeelu yoof ba pare di ministre de la santé lii dalaa ci kawam sëñ Abdoulaye jàppale ka ka en tant que doomam gorom ak ilif gi mu ilif dëkk bi ngir mu tas ka si quartier yëpp muy yoof gëpp moo waral suñuy tànk tey ñuy sàkku ngeen ñaanal ko bu baax moom xalifa bi yàlla bàyyil ñu ko fi ak njaboot gi yëpp waaye ñaanal it Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom la yàlla teg si boppu dëkk bi ba pare nak ministre de la santé lii daal ci kawam yàlla may ko si ndam mu génn ci si jàmm ñun ñëpp ñu siggi si am si ndam ndax bu Abdoulaye Diouf Sarr amee ndam yoo fa am ndam kon yàlla na yàlla may ndam ci lii yàlla dimbali ñu itam lépp lu mu ciy ragal rek yàlla nëbb ko ko lépp lu mu yaakaar si lu baax yàlla defal ko ko yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna bi yëpp barke Baye Laye di loolu daal moo doon suñuy kàddu bi ñuy ñëw nag ànd nañoo doomu xalifa bi di Assou Ndiaye Thiaw muy mag si yaa faati Thiaw laay mu soxna si Ablaye Diouf ànd ak Baye Seydi mi nga xam ne sët si xalifa bi ak ña njaboot gi ñaan la jigéen ñi ñu ñëwoon tey nemmeeku si leen seet si leen comme ni ñu ko wax si ndigalal xalifa bi di ñaan yàlla daje bi yàlla bu mu doon suñu mujjantalug daje yàlla nañ daje di jokkalante ay teraanga te mbas mi yàlla jëlal ñu ko fi mu gën a gaaw ba kenn ku ne delluwaat sa activité wa axiru daxwaana ani alhamdulilahi rabbil alamin waaw asalaamaaleykum mbooloo mi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci bi e, ñu ngi ndokkeel délégation bi nga xam ne ñoo jóge Layeen ñëw fii e, li nga xam ne moom la Baye Ablaye Thiaw def tey dafa topp rek ci mag ñi ay magam yi luñ daan def ku nekk xam na paparaan digganteem ak yof bon bu bàyyi Ablaye ñëwee feddali lu mel nii waa yof du ñuy def lu sant ko gërëm ko te di ko ñaanal yàlla euh, tarixa bi nga xam ne moom la jiite muy tarixa laayeen yàlla na ko yàlla yàggal ci kanam ak kanam mu toog fi ay ati at yàlla li ko wér ñi nga xam ne ñoom la jaboote fa mag ña tegoon seen tànk e yàlla na ñu fa teg seen tànk bakar ba ñuy fekk mag ñi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu quartier bi. salaamaaleykum wa rahmatullah liñ ciy wax du bari ginnaaw bi nga xamee ne imam yóbbaale na pratiquement waxtaan wi yëpp dañuy dolli rek di santaat ba Ablaay bu baax a baax yal na yàlla defal ko wér yal na yàlla defal ko wér. yal na yàlla defal ko shifa yal na yàlla defal ko fan gudd gudd gudd ak wér gu yaram njabootam gépp yal na yàlla teg loxo ci ñoom ba li ñu namm ci ñoom ñu bëgg ñu am ko e, delluwaat rek di sant parce que lii xew nii ñëpp a ngi jóg te loolu mooy ak njulit te mënuñu wax jullit wala ñu wax lu jëm si jullit te kenn tuddul Seydina Limaamu mënta nekk ah bon nag loolu su bine su bëree nëgër ni ba tey li xew am fi dañuy dolliwaat rek di sant yàlla di ñaanit feebar bi jóge fi parce que ñaan gi yëpp li si ëpp solo mooy mu joge fi mbas mi jóge fi feebar bi bàyyiwul jullit bi bàyyiwul catholique bi bàyyiwul païen bi bàyyiwul ministre bi bàyyiwul mécanicien bi ah bon nag dañu war a ñaan rek yàlla jële ko fi te am nañ yaaxin ne ñoom bu ñu ñaanee yàlla dina si def sutur donc nañu dolli ñaan parce que ñaan du doy et di kontaanaat si li ngeen fi indi ni ngeen ko bëggee it góor góorlu bu baax a baax ba mu àgg si fiñ ko fiñ ko soxlaa yépp di santaat rek jigéen ñi ma seen coono waa quartier bi jërë ngeen jëf parce que lu minute bu jot bu ñu ootee ñu daw bàyyi seen i te ñëw toog te li ñuy def yépp ñu ngi koy defaral waa quartier bi di santaat bu baax a baax waa Laayeen di santaat bu baax a baax waa Yoof e jaarale ko encore ci ami top yi nga xam ne moo Ablaye Diouf Sarr ñoo nekk e yal na yàlla yokk seen sutura ndamal Ablaye Diouf Sarr ndamal Yoof gépp la te am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar parce que boo xoolee nii feebar bi demee nii rek nga xam ne am na am na retard ci yenn yi par rapport ak yeneen dëkk yi nga xam ne dafa dugg rek nit ñi di wax ay ay centaine de morts ay milier de morts bon suy traîner nii am na lu ñu fi yaakaare loolu yàlla bu mu tas yal na yàlla yokk sut jërë ngeen jëfati sanga bi Adja ñu ngi leen di ziar bu wér wax leen góor gi kontaan nañ ci moom ñu moom moo ñu ñaanal parce que ñun mënuñu kaa ñaanal moom nañu ñaanal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa su ma waxee noonu suñu yaakaar ci moom la mais yàlla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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. في العالمين إنك حميد مجيد آمين. اللهم نجنا من هذا المرض الفتاك كورونا فيروس اللهم نجنا من هذا المرض الفتاك كورونا فيروس اللهم نجنا من هذا المرض الفتاك كورونا فيروس سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين